waa ñu war a delloo ci Sénégal ñu woo ma nag tey ci suba bi ma wooyee bi ma wooyee ma damay dem Saal mais après naa def live euh, def alerte wax ko Sénégalais yëpp ñu xam fii si fii si Amérique am na 17 Sénégalais yoo xam ne dañ leen ko war a jëlee delloo ji leen Sénégal ñu ngi nekk ci def bu ñuy wax musique musique country musique country mu ngi nekk fii si euh, mu ngi nekk fii si mu ngi nekk Californie ay Sénégalais yoo xam ne dañoo jógee Brésil ñëw fii parce si li li ma booy yi wax bi ma wooyee nee nañ euh, consul bi fii consul bu euh, bu Sénégal bu fii nii moom moo leen jox euh, autorisation pour ñu delloo ji booy yi Sénégal loolu li ma booy yi wax 17 personnes ay sénégalais ñoom ñu ngi si benn dëkk bu ñuy wax music country parce que Californie waaw di wax rek li ma si bëgg wax rek mooy ay doomi Sénégal ñu nga sa Tunisie ñu leen di toroxal ay doomi Afrique bu euh, ñu Sénégal def benn réaction pour jéem leen a jëli delloo ji leen Sénégal comme ni ko Guinée defee comme ni ko Afrique Côte euh, d'Ivoire defee comme ni ko yë dëkk yu bari defee euh, te suñu président de la République Macky ñu ngi lay wax ne la ah yàkkam di nga ñuy delloo ji ay sénégalais te réew ma dem mais du la dicté ndax sénégalais buñ jëlee fii delloo ji ko te réew ma bu yeggee na jàkkaarloo yow parce que ñun xeex lañ jëm résistance li woon woon ni nag waaye ginnaaw loolu ma lay ñaan si li ñu bokk muy Sénégal bi xam ne ñun ñoo ko bokk yem si mais jiite ko di président de la République ngeen jël sénégalais yi sawar ngeen lool di ñu delloo ci Sénégal yi di sénégalais yu nekk Espagne wala sénégalais yu nekk Amérique sénégalais yoo xam ne ñoo jógee Brésil jaar si yoon yu métti ba dugg Amérique nga euh, sa sa ambassadeur wala sa ministre affaires étrangères xaw ma kan la si waaye li ma booy yi wax na si laay sukkandiku ñoom ñoo signé pour ñu delloo ñu booy yi Sénégal te loolu ñaaw na trop bu réew ma meloon na war a mel duñ delloo ji kenn sa réew ma nga dëkk ngay jooy wala ngay ut wallu naan dimbale leen ma bu ma dellu bu ma dëkk loolu ñaaw la loolu garaaw la loolu moo tax ñuy xeex moo tax Sénégal yëpp da ngeen war a xeex lii jóge foofu parce que li ñu wut si dëkk tubaab yi ñun am nañ ci buñ suñ dëkk bu foofu noonu ak luñ fi mën ci am ci barki alxuraan toroxtaange rek moo fi am dana amul dëgg la nag ku fi ñëw di nga tabax ku fi ñëw di nga jënd da nga takk jabar bañ ngeen ko ba tiktok yi sax loolu ngeen fay dugal di di di ay ay ay musique bu gaaruwaale samay noon dem biir downtown photo wu dem si ville dañuy photo ah, te loolu loolu yëpp moomu ñu si dara ndeysaan loolu mooy premier complexe bi nga xam ne mu ngi si ñun te loolu loo nga la ñuy moo tax ñëpp dañoo war a taxaw xeex suñu réew moom nga xam ne am nañu lépp ñu jël réew mi teg ko si loxo yu wóor beneen bi may ñëw ci sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fii ci Amérique te jógee Brésil da ngeen ma déglu bu baax conseillers yi ma leen di jox dëkk bii lépp loo fi def duñ ko baal dañu lay delloo ji Sénégal dëkk bii boo nee tak ñëw si dëkk bi bala ngaa dugg si dëkk bi danañ la danañ xam yaay kan koo juddoo koo jaar ak lépp loo mas a def danañ ko xam nga soog a dugg ñu am sa information yëpp laaj la si kan nga jëm nga ne ci diw laa jëm diw moomu nga jëm buñ lay wër ñu la gisul diw moom la ñuy indi problème léegi nag yéen sénégalais yi jógee ko Brésil jógee ko fu ne ñëw dugg fii Amérique tey jii ni jàpp leen ne dëkk dañuy aaye ku fi brûler terrain dëkk bii dañuy bañ ku jël moto di ko dawal ci trottoir fu nit ñi di dox moto du ko daw te da ngeen koy def dëkk bi dañuy aaye ku jël vélo dugal ko si terrain wala moto yow moto noo koy dugalee si terrain ab moto loolu yëpp buñ la jàppee wala nga buñ la terrain police yi dañ lay jox ticket daal di la bind bàyyi la nga dem police yi mën nañ laa gis ci caméra yi fexe ba localiser la xam fi nga dëkk bàyyi la nga dem bis day jot nga soxla kayit bis dafay jot nga soxla kayit ñu def lu ñuy wax background check background check mooy si olof mooy ñu delluwaat si yow fa nga jóge woon sa histoire ñu xool lan nga mas a def si dëkk bi loolu dalay topp ba doo am kayit loolu dalay topp nga am kees koo xam ne yow fa muy mujjee rek mooy ñu takk la delloo ñi la Sénégal réew ma nga réew moo mën dëkk kon bu ngeen demetee si terrain yi ngeen fekk balaag yi nga xam ne si dëkk bi lañ dëkk wala ab citizen koo xam ne si réew mi la dëkk ubbil la buntu terrain bi na la dugal bul dugg de demal moo gën ñu yàq say kayit 3 dollars yi ngay fay pour dagg ci kayit terrain moo gën ñu yàq see kayit ba doo mën a am kayit parce que gis nga boo yemee si police police bu la yóbbu kaso du la def dara te bokk na ci délit yi gën a métti ci dëkk bii mooy nga burle terrain ñu jàpp la dañ lay jox ticket mën ngaa dem fayi de mais bul jàpp ne ci fay googu rek ngay yem da lay topp dañ koy def ci sa ay kayit yi nga xam ne yaa ngi war a am kayit ci dëkk bi bis mën na ñëw nga soxla kayit loo soxla ci dëkk bi duñ la ko jox beneen bi na police yoo xam ne dañuy la bu ñu la tiyee laaj sa ID boo amul ID nag danañ la laaj sa tur ñu dugg si système système yow réew euh, ba ngay dugg si dëkk bi système bi buñ ko duggee danañ xam kan moo la dalal bi nga duggee si dëkk bi danañ fexe ba dem si kooku bind ko lettre ne ko ah Cheikh Anne mii kat daf doon dawal moto si territoire dëkk bi da koy def nag muy neex kenn du la wax dara beneen bi mooy train ab train train autorail train comme ngeen ne bu Sénégal naka ngay jëlee moto di ko dugal si train tubaab yëpp ñu ngi bind boo na benn site boo xam ne boo demee dañuy complain li xew si dëkk bi dëkk bu nekk la fa xew mais boo demee la fa ëpp nee nañ mooy moto yi ngeen dugal si biir terrain yi ak vélo yi ndax da ngay gis groupe groupe bu sénégalais ñëw dugg si benn wagon kenn ku nekk yor moto imagine Touba cinq personnes nekk ci benn wagon ku nekk yor benn moto ak vélo ba nga xam ne terrain bi kenn du mën a dugg loolu tubaab bi fii du Sénégal ñoom dañuy photo daal di envoyé gis nga benn tubaab xam nga ñun Sénégal dañuy manifester woo nit ñëpp te président de la république bu ñu déglu fii benn tubaab boo defee loo warul def benn tubaab rek bu bindee état bi daf lay jox respect daal di xool li nga bind tontu la ba pare taxaw si la nga bind ñoom dañ lay photo dañuy photo yow li nga def si biir terrain bi moto yi nga dugal si biir terrain bi vélo bi daal di bind bu ñu bindee rek automatiquement maire da leen di tontu tey bu dee maire de Dakar Barthélémy Dias nga dem photo benn table bu teg si kaw bi ne ko lii table bii tey bu ñu fi fanaan Barthélémy Dias Dias fexe ba table boobu du fa fanaan que moom mooy maire Dakar ndax looloo tax ñu fal ko pour def ko meeru Dakar bu dee Sénégal la dañuy bàyyi mu jàll mais fii Amérique duñ bàyyi mu jàll kon yéen Sénégalais yi yéen a mën a yàqal seen bopp yéen a mën a defaral seen bopp gis nga seen moto yi ngeen dugal si tey tubaab bi jóg lu musul mu di ko def di leen takk di leen yeew benn par benn bëgg leen a delloo ji réew leen kayit de yéen da ngeen a nekk si kees ay refusé ngeen ngeen dugal euh, euh, refusé ngeen dugal kayit bëgg am kayit pour mën a valable pour mën a euh, valable ci dëkk bi te xam nga fan lañ jëm ak yéen su ngeen arrêté wu seen moto yi ngeen dawal ci si territoire yi bu ngeen arrêté wut seen moto yi ak seen vélo yi ngeen dugal ci terrain yi fan lañ jëm ak yéen mooy utal vélo yi ay plaque numéro te loolu amul pour si dëkk bi de utal kenn ku nekk bala ngaa mën a dawal welo da ngay am këyit te su boobaa ku amul këyit doo dawal vélo ku amul permis doo dawal vélo doo dawal moto si dëkk bi te loolu yëpp may nañ leen ko ngeen di dawal vélo sans këyit ngeen di dawal vélo moto sans permis bu leen yàqal seen bopp lii nag conseil bu may jox bépp sénégalais bu jógee Brésil dugg si dëkk bi ngeen di def si kaw tali bi lii nag ay conseillers yu ma leen di jox pour ngeen mën a am këyit dëkk bi du la topp du la sonal waaye nag fa ngay leen fa nga leen di soxlaa lañ lay lépp loo mas a def si dëkk bi kon boo xam ne def na fi 30 ans mu xëy benn jour ñu yee ko këram ne delloo ji ko lu mu fi am ñu yóbbu la ak loxoy kese te dootoo dugg si dëkk li ay conseils yu ma ñu jógee Brésil ñëw si dëkk bi ku leen balaa ku leen ubbil terrain bi bunt bi ne la dugal bañal demal nga fay ticket 3 3 yomb na sinon doo am kayit même njaay mi njaay mi ni ngeen di jaayee dem canal fees fa tel mais am na ñu ngeen fa fekk fexe leen ngeen laajte ñooñu naka ngeen di jaayee fii ngeen organisé wu su ko defee mais ba ca xoo ga am Brésil ba ngeen doon def Brésil bu ngeen ko defee fii wala bu ngeen doon Argentine wala bu ngeen doon Europe wala ba ca xoo bi ngeen doon def Sénégal bu ngeen ko defee fii yéen ñëpp la ñuy takk delloo ji leen américain day doon kee ñoom seen yoon nekkul si ay sama yaay dafa sonn suñ dëkk ba ñoom loolu seen yoon newu si da koy yéen na da ngeen koy jàppee raciste fekk yéen a yàqal seen bopp association yi ngeen am fii si dëkk bi toog leen ngeen wax seen bopp man dama leen di jox en tant que frère en tant que sénégalais bëgg ngeen am si réew mi lépp lu fi am mën ngeen ko am mais na fekk ngeen tegu si yoon dëkk bi booy ut kayit li ñu njëkk xool mooy dañuy def background check ndax yow mosoo def benn njombe ci dëkk bi bu dee mosoo def benn njombe ci dëkk bi danañ la may nga kayit dañ la may nga andi sa njaboot dañ la lépp waaye gis nga bu nekkee da ngaa def benn njombe duñ la wax dara parce que duñ la yëgal ne dañ laa war a delloo ci da ngay yeewu rek kër ga nga joxe woon sa adresse bi ngay dugg ci dëkk ba la ñëw bëgg borom kër gi dugal la ci oto ñu nga war a delloo ji di set sénégalais te amaana li tax delloo boobu war a am mooy li nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy complété ci terrain yi seen moto yi ngeen di dawal ci trottoir yow moto nga di ko dawal sens interdit seen moto yi ngeen di dawal sens interdit seen moto yi ngeen di dawal ci trottoir trottoir bu nit di dox lu ko nit dawalee moto wala vélo ah premier problème bi Sénégal am ñun sénégalais ñoo ñun sénégalais premier problème bi am Sénégal mooy éducation ndax loolu bokkul si éducation xasuma kenn nag dañuy waxante dëgg tey parce que benn sénégalais bu ñu jàppee ci terrain bi mu jël moto dugal ko ci terrain bi wala ñaari moto bloqué bunt bi ba kenn mënta dugg ci terrain bi kenn mënta wàcc ci terrain bi yaa ngi yàqal junne sénégalais yoo xam ne war nañ ci mën a for seen wërsëg dem ñibbi réew ma teral seen waajur kon asalaamaaleykum wa rahmatullah